jaar na ko waar. maa yegg si jàmm maa ngi bagage. naka am na may sa kanam gi dama triste trop. da maa daw ba sonn. ma ne sa kanam gi dama triste trop. da maa daw ba sonn. dama bëggoon ma bëtt la. fan yii maay bë maay bëttaate. wala wala mu bëtt la yow. non fan yii maay bëttaate la. waaw bëtt. naa yàgg naa laa topp ngay physique. géej ma lay ma lay ma lay suuf boobu mënu ma la woon bët mais léegi maa la mën a bët. non mënoo ma bët. non giri nag léegi maa la mën a bët. parce que moom la mënu maa bët. giri mënatoo reculer abdominaux boobu. non non reculer abdominaux boobu mënatoo ko. doomu rek mënu ma bët. mënu ma bët doomu bët. ñu joxante rendez-vous. saa yoo ko bëggee rek. saa yoo ma ko bëggee. yaa ko tere neex. alors sa mag di bëre tey Moustapha Gueye de noo gisee. sama maître sama maître sama maître tey moo tax mu ñëw yokk ko doole parce que bu weesoo làmb sama xarit la sama gaan la ñuy partagé lu bari loo xam ne ça n'a rien làmb li mu xam sama biir il est bu ko xam waaw yàgg nag yàgg lool waxaru li ma lay wax ne ak moom ak làmb moo tax tey bésam bii dama ko ñëw rek pour jox doole xam na li war a def parce que nee la sama maître la dafa def ci man lu bari mais xale la jël xale la jël non mais làmb amatul xale ak mag làmb amul loolu garab ci kaw lay fekkante ñu gis ne waaye Écurie Fass waxtaan ngeen seen biir ngeen di euh, ngeen joxante loxo loolu moom mos a loolu moo mës a am ay nit ñu bokk waxtaan mais li ci li ma ciy déplorer rek mooy parfois il faut pointer du doigt aux gens yi nga xam ne tey ah teguñu teguñu teguñu teguñu teguñu charte écrit bi teguñu ko yoon parce que il faut oser ah parce que dëgg kenn du ko loo xam dañ ko bokk la plupart il faut pas que il faut que ñuy jël les il faut tamit li nga xam dañ ko war wax new ma nag nga war a dara dem ko ca di ko wax parce que waxtaan ci la war a yem mais bu ñu amee habitude di toog di waxtaan dañuy waxante dëgg parce que dëgg alalu yàlla dëgg dafa ne yàlla ko moom te tamit bi am na ay euh, instance instance na ay instance instance yooyu commencé ko ci man en tant que leader su ma ko wàccee sax dañ ma war a woo yamale ma na ma lii ngay lii ngay def tegoo ko ci yoon te mën na yàq mën na indi ay jafe-jafe équipe bi c'est valable pour tout le monde c'est valable pour lutteur c'est valable pour dirigeant mais dañu am habitude di def ay ay sorties yoo xam ne sortie sortie de kii la nu mu ko kii nu mu ko tuddee euh, sortie maanaam boo boo xam boo discours discours wax ju rafet ñëpp ko mën waaye wax nay dëggu rek waaw boo discours ñëpp ko mën man bii di wax wax ju rafet kenn dàqu ma ko waaye nag waxum te dëgg bu jotee waaw buñ ko raay buñ ko raay nañ wax ci dëgg bi diw tànk yi ngay dox ni ngay doxalee biir écurie Fass moo xam ménagère moo xam mbër moo xam dirigeant ku ci wàcc yoon ñu yamale sa place ne la li nii c'est valable pour tout loolu mooy defar waaye nag du ay raayanteeg wax bëggul du ko neex ak yooyu yooyu ça va bien dañuy waxante parce dëgg moom la yàgg yàlla bëgg. mën nañoo xaar Gris Bordeaux ren mu wàcc ca géew. waaw incha allah bientôt rek bientôt kon yaakaar nga ni di nga jël ah, avance. parce que discussion yi bari na trop bientôt incha allah. bu neex taxaw Ama Baldé Modou Lô noo combat moom moo publicité boppam. moo publicité boppam waaw moo publicité promoteur bi. waaw ah, gàcce ngalaama gox mooy léegi promoteur des grands événements. gaawul yëngu mais bu yëngatoo rek dañuy Sénégal yi bëgg leen di joxal. combat bi am na favori. non mënu am favori. lamba amatul favori. amatul favori. lamba déedéet lamba amul favori lamba. sañ-sañ la ak gëm sa bopp. rek def la nga war a def. mais lamba amul favori.